cey cey yeey cey cey su ma jëgg ba mu yàggee dee leen ma xool su ma jëgg ba mu yàggee dee leen ma xool jëgg am na koko koko waaye danga danga ci la yeey waa Parcelles ji xale yaa ngi nii waajam ma jënd nii xanaa xamu leen ni ñoo bokk ndey ak baay imagine Wura kikin, wura kikin, cac, cac. Wura kikin, kikin, kikin, kikin. Mbah, mbah, kin, mbah, kin. Cai, ku sokhane, ku kekendudak, passer le but. Hey, anak kamu malajin. Masa masa. Kita tak kita kita kita jërëjëf Baye Demba. eh ma ñëw. félicité. jërëjëf. félicité. Goku! sukunya sukunya sukunya sukunya Yes. Wow, wow. Sukunya, sukunya, Cina Jomal Nanyu. sukunya. Sukunya, sukunya. sukunya. Papasau, sukunya sukunya. Papasau, sukunya sukunya. Papasau, sukunya sukunya. Kita zaman nala. Sukunya sukunya. Kita zaman nala. Papa, sukunya sukunya. Melalui sukunya, kita kita habis. Melalui sukunya. Melalui sukunya. Melalui sukunya. Yang situ, yang situ. Sénégal ba jéggi frontière yàq ko Sénégal ba jéggi frontière yàq ko Sénégal ba jéggi di nga fa toj mais lanu sugu si ta jomal si ta Siteu dafa yëngal aw leen wax leen yëngal tel Boy Siteu dafa yëngal ku ci nekk Siteu loxo vai Vale, vai Vale, vai Vale, vai Vale, vai Vale. Yeah. bu ci kanamee tuuti film bi dina ñëw léegi nag dañuy bàyyi